baaxoo ànd ak chaîne bi di DS Pro DS Pro nag tey dafa déplacé wu nag ñëw fii ci Difoncé ku xam Difoncé nag xam ne nag ñi fi yëngatu bari nañ tey nag ñu fekk si ñoo xam ne nag ñi ay maçon lan ñi ay ouvrier lan ñii ay dawalkatu pus-pus lan kon nag dunu guddal damay ànd sama sama cameraman njaga mu topp ma xam naa jataay bi nii su fi toogee dinaa fi jël ay information Ndiaga ñu dem asalaamaaleykum sëñ bi ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay fay baa yaa ngi ci jàmm maa ngi si ah, sant yàlla bu baax naka euh, dëkk bi. waaw dëkk baa ngi fi ñu ngi sant rek. macha allah ginnaaw bi ñu la jàppale jaajëfalee ñu baal ñu fàttali tur bi. waaw. non dama liggéey ñu toog rek. toog noppalu tuuti quoi. noppalu tuuti. xanaa liggéey dafa am. waaw no liggéey yenn saa mu am yenn doo yi du am. mais réew mi noo gis a doxin. waaw léegi kay macha allah ñu ngi ñu ngi si jàmm. alhamdulilah yaa ngi gis sa bopp. non c'est maa ngi gis sama bopp tànk dëgg bi ñu ngi yeewu ci jàmm bon di liggéey di xëy di liggéey bon yenn saa yi nga dóor waar yenn saa yi nga noppi quoi. léeg-léeg daal day dox léeg mu ngi noonu. mais ñi nga xam ne nag dañuy critiquer mais état bi di doxee nii ak liggéeyu état bi est que état bi mu ngi liggéey. critiquer mënul ñàkk état mu ngi liggéey loolu kay xanaa gumba yi sax xam nañ ko. Ah. waaw. a bëri na état ñu wër yow yow même boobu dama ne la gumba yi sax xam nañ état baa ngi liggéey ah. waaw. ah mais mais am na ñu ci gisu seen bopp. moo tax ma ne loolu mënul ñàkk du du état du daf du daf bosion ñëpp ñëpp mën ñu gis li état di liggéey ñëpp mënuñu koo gis. mais ni yow lan lan mooy sa liggéey. damay def décoration damay def menuiserie en bois mhm. def montage ay rideau affaire yooyu kër yeeg yooyu quoi mhm. waaw loolu laay def. mi waaw boo yenn saa yi mu dox yenn saa yi mu taxaw. Hmm. kon daal Macky Sall loo koy waxee. pose troisième candidat. mais la nga wax ëpp na de. waaye na def troisième candidat nga ne man daal bu bu bu bu posewul nii man du ma wate élection deux mille dix neuf yi deux mille vingt mais Ndiaga kii li mu wax garaaw na ne Macky Sall na posé waat candidat mais est ce que xam nga ne mu posé waat candidat fitna ji mën a jugee. waaw non ban fitna war a am. ban fitna moo war a am. na posé rek bu gars yi nangoo. ànd ak moom bu nanguwul ñuy féetee fële rek. mais yow daal a posé. loolu tax nangul wax waaw nangul waxu déet. waaye na ko wax. kaa dëgg leer benn yoon. est ce que tàkk. waaye ban tàkk. réew mi Adji Sarr waaye ah. Sonko daal mu ngi noonu daal. Sonko daal mu ngi noonu daal. ñun ñëpp ay citoyen lañ ay sénégalais mais am na xam nga ne moom jarutoo ko fi quoi ay histoire xeex bi di tojikaar bi. yooyu jaru ko fi loolu sax war nañ cee wax parce que dañoo gis jamono ji léegi ku mer Dakar dem dikk biis yi moom ngay taal wala nga dem taal ay osan wala nga taal ay bërëbu liggéeyu jaamur wala nga taal oto jaamur wala kërub jaamur est-ce que loolu c'est normal teguñu ko fen teguñu ko biis yi ñun ñoo ko moom osan yi seen borom ñoo am seen xaalis investir ko si dëkk bi pour doomu dëkk bi di ci liggéey mais jékki-jékki rek sawaay jóg rek bëgg a taal dëkk bi barke démb la fi ñëw am na ñu ko fi jiitu mais loolu yëpp amu fi. mais système bi système bi système bi te moom système bi ci la juddu ci la màgg ci la yaru ci la am liggéey ci système bi léegi lan moo tax mu bëgg ñu changer système bi. moom moo xam parce que mu ngi doog ñëw daa bëgg indi système boppam samp samp fi boppam te loolu mënul nekk. Ah. loolu mënul nekk mënul nekk. non non mais élection maire yi nag fi toll nii ko wax wax élection maire yi parce que ñu ngi koy wàcc ñii campagne a ngi campagne euh, élection yi noo ko gisee. Ah, yi yëngu na yëngu yëngu daka am na boroom kan moo ko moom. waa ji Khalifa Sall kii nu mu tuuti. <laughs> Euh, non non. nu mu tuuti. déedéet Barthélémy Dias Barthélémy Dias ak groupe boole ñoo yem rek. Ah. Euh, nu mu waaye Aliou Ndoye. Ndoye Ndoye Ndoye. waaw Aliou daal la àndal. mais est yi ñun dañ ñuy nax saa su ah koo bëgg nax ñu nax la ah. ku ñu bëgg ñu nax la ñu nax la de mu jeex. mais liggéey bi nag fi mu toll nii moom baa mi ngi dox rek. non ñu ngi sant yàlla. doxul 100 pour cent quoi mais ñu ngi góorgóorlu. pour ah. ñu am yóbbu njaboot ji yooyu. Ah, waaw waaw nuyu ñëpp rek sant ñëpp ah. sant président suñu président bi Macky Sall. <laughs> waaw. yaa ngi bu baax. damaa ñëw fekk la nga toog de. waaw fi la ñuy dóoree war quoi fi la ñuy war. ah Baal ma fàttali ma tur bi. man la Baye Mor. bawal bawal nga wala. waaw Saloum Saloum waaw. ah Saloum Saloum waaw waaw. kon gerte gi war naa ñor. oui xam bu kay. ah <laughs> mais ana gerte gi. ah gerte gi mi ngi réew ma mi ngi réew bàyyi naa ko sama jarbaat yi. <laughs> bàyyi ko ko say jarbaat. Ah, ñoom ñoom ñoom ñoom gën a xam gerte gi daal man maa ngi Dakar man. yaa ngi Dakar. waaw di ko ràdd daal. lan ngay liggéey. fii laa nekk nag ci place bi. Hmm. waaw ay tiwale yi jaay quoi ñu ñoo yor pousse yi quoi. ah yéen a yor pousse donc bu gaa yi jëndee client yi ñoo la koy yóbbul daal. Hmm. ñu fay ñu waaw. mais pousse pousse yi est-ce que mi ngi dox. alhamdulilah alhamdulilah. ñu ci fort suñu wërsëg wax dëgg yàlla. Ah. alhamdulilah. journée ñaata. waaw ça dépend amul moom maanaam fixé wul fenn daal. Hmm. waaw léeg-léeg nga am journée 3000 mën nga am 5000 ba lu ko ëpp ça dépend rek. Ah. waaw si journée bi daal. bu liggéey bi doxee daal dana da nga am waaw bu liggéey bi doxee moom mën nga am junni moom. Hmm. waaw. mais pousse-pousse yi ak bu élection yi jub see ba duñu am ay jafe-jafe. Ah, waaw non yàqu ci dara yàqu ci dara. Hmm. Ah, fan yii yëng réew mi yëngu woon na de. waaw yëngu woon na nag waaye nag bu dëkk bi yëngu woon gars yi dañuy taxaw rek bàyyi bàyyi bàyyi ba mu dal ba mu dal rek. ñu doog a nekkaat ci waar bi daal. mais lan ngay wax nga xam ne bu ñu amee looleen naqar rek dañuy yàq oto wala ñu dem yàq ay osan loolu loolu leen di wax. lool moom li ma ko mën a jàngatee moom maanaam yàq bi moom moo mënta ñàkk moom mën naa ñàkk moom. waaw parce que nit ki moom mën ngaa faj dara te doo yàq doo xeex doo sànnante xeer li nga bëgg nga faj ko ci jàmm ak salaam yàquru jàmm mais président bi def na woon du gis yu ruus xam nga Ablaye Wade def na woon bu ngeen amatee loolu naqari takk leen lu ruus ma xam ne am ngeen lu leen métti ah, moom nee na du gis lu ruus waaw ah, moom nee na du gis lu ruus waaw ah. mais a xam na la mhm. loolu moom mooy jàmm ji daal mais daal gis nañu fan yi moom mi ngi dox moom waaw fan yi nag dafa xaw taxaw nag wax dëgg yàlla waaw yaakaar naa ci xam naa loolu la moom parce que liggéey moom par période la rek léeg-léeg mu neex léeg-léeg mu naqari daal mais nag sant ñuy sant daal alhamdulilah waaw ñu daal bu ñu xëy sax ñi toog rek lu ñoo xam ne lii la waaw bu journée bi neexee ñu sant bu naqari fi mu toll nii nag liggéey euh, daal ci bénéfice a ngi ci am loo yóbbul njaboot gi am loo dépassé waaw boo amee sa soxla daal nga faj ko bañ a lam ci kenn ci mhm. taalal kenn waaw loolu daal sant dañ ci lu bëri waaye nag ñu sant ñu ngi ci sutur bu baax nag. Mhm, yéen a ngi ci sutur waaw fecc yu soxla demuñ ci kenn daal alhamdulilah. boo doon am message boo xam ne da nga koy jàll président loo koy wax. waaw président rek xanaa moom ñu ne maanaam gàcce ngalaama rek maanaam yan bi diis na. Mhm. parce njiit moom daa xaw a métti. Mhm. waaw nit ki moom waroon ñu mën a war mën a basé wu ci nguur gi rek. waaw ku nekk da war a jaayante fas jom maanaam bañ a basé ci nguur gi. waaw demal sa bopp daal loo xam ne loolu la waaw nguur gi nag moom ñi koy ñi koy jaajëfal rek di ko ñaan yan bi gën a woyof rek parce que maanaam njiit moo yombut daal ñu ngi mel ne mbooloo rek maanaam bu mu bëri bëri kenn ñu jiital bu juumee foog ñu jokkandi ko rek tegal ko ci yoon rek maanaam bañ ko mere daal waaw loolu moom solo waaw mais gisoon fan yi ñu ngi waaj a fal premier ministre est-ce que jàpp moom daawoon na Macky moom génne woon ko fi moom ne woon da koy falaat nag waaw mais nag ah ginnaaw moom moo dem ba xalaat loolu te mooy président mooy njiit bi hmm. ah ñu ànd jëg moom rek ah. ah moo waxoon moo waxoon kay moom moo ñëwaat ah coo jibul am moom la rek ah. waaw macha allah sango ñu ngi lay ziare kon njaga xam naa dañuy doxantuwaat tuuti rek macha allah sama waay moom xam naa ni Macky Sall la moom yoonu jàmm nag soriwul comme ni ko wala fi waxee kon damay ànd ak sama cameraman njaga rek ñu doxantu xoolaat bu baax a baax njaga dafa mel ne gaa yi dañoo xaw a ragal nag de <laughs> doxantu bi nag dama fee gis kel buy bisaab ah fekk fi sama yaay mu di ko jaay yaay buy maa ngi asalaamaaleykum. na nga def. ba yaa ngi ci jàmm. maa ngi ci jàmm. bal ñu fàttali ñu tudd. Eh, Binte Thiaw. Binte Thiaw. fan nga jógee. Touba. Touba. kon yow bawal bawal. bawal bawal waaw ñu fekk la ngay jaay ay reen kel ak buy ak lan mooy sa sabab ci lan mooy sa. njaay mi. ah lan moo ma si dugal bi ma ciy dugg booba dafa xaw a doy waar rek may jaay affaire yi jën yooyu doxul ma ñëw Dakar may jaay kel bi buy di saab ak garabu ndoxu siti yu baax lool di fa siti yaram buy xisen wala ngay wokkutu ni wala ngay am maa séeré yooyu lay. bal ñu fàttali ñu tur bi. Diallo Saliou. Diallo fan nga jóge ñëw ci dëkk bi. fii. fan nga jóge. Rebeuss fii laa nekkee. ah fii. mais ban dëkk nga jóge daal laaj ci bëgg. ah Guinée ah, mais naka xaal bi mi ngi dox. alhamdulilah sant yàlla. ah sedd bi ñëw na na. fi mu bàgg nii dagg ñaata la. am na 100 francs am na 50 francs am na juróom. am na juróom tamit. waaw waaw. réew mi lan nga ciy wax. yàlla nañu yàlla dimbali mbooñ a nekk. mais naka réew mi ni muy doxee yaa ngi ci gis sa bopp. kon njaga dañuy may sama baay mu wecc ko xam naa ne soxna si moom mi ngi ak mbuusam soxna si na def. macha allah looy jàllale président. <laughs> Ndiaga macha allah kon nag euh, loolu la leen indiloon ñu ñëwoon fii ci Défoncé doxantu ñu jaay ay garab macha allah ñu euh, am ay taxawaay yu ama am solo tamit ci réew mi am kàddu ci réew mi kon nag président ñu lay wax rek nga. du ma def lu dul jaajëfal sama cameraman njaga ma ci émission bi di jaajëfal bu baax a baax a baax sunu kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo seq des pro yëpp rek di leen ñaanal gudd fan di leen ñaanal wér xanaa jox leen dig daje rek ci beneen émission wasalaamaaleykum